ma yëg-yëg daal mooy liggéeyal na sëñ Tuubaa sëñ baa ngi koy fay mbooloo mi ku yàlla bind boo sañoon ba fi sa baay bàyyi ko am mënu toll beeje nag ku ne xam ne waxut daa jëf màggal lim daa rey ci nag kenn mënu ko wàññi man matagul deux mois sama koñ bee xabooru xayri deux mboolem sànci ya samay soxnaa ma ko wax la fa beeje wàcce ci dund mënu su ko wàññi moom doomu sant cuun waaye li ko sëñ Saliou defal ko sant cuun amoo ko kañaan baaxul Cheikh Ibra Fall dane jëf jël waxut bëgg jël waxut te boo nee sëñ Tuubaa ne Cheikh Rafal booy laajte Baye Fallou sëñ Cheikh sëñ Saliou bul jëm fenn teel sëñ Béthio mooy mooy Baye Fallou sëñ Saliou. diggante nag sëñ Saliou. daal liggéey sëñ fay ko rek sëñ Saliou daal liggéey sëñ fay ko. waaw kon sant yàlla doon la la in sakartum la si dandukum ko may lii daa sant nu dolli ko ku ne xam daa sant. sant gaa ko may mu mujj ci doomi sëñ Tuubaa yi menn moom la sëñ Tuubaa a xool na sëñ Isaa jenn sëñ Tuba ne kon maay baayam sëñ Mourou Safa dafa daanu te sëñ Mourou Safa sëñ Tuba ko jur waaye dana sëñ Saliou nee ma ñëw bokk bàyyi rek ma may la sama kër ga ci mbuur addi sëñ Tuba sëñ ko ne comme defar doo yàqu. weeru koor ku ko génn àdduna kenn doo la laaj dara ah tëj nañ sa war ubbi aju na aju maa gën ci bis yi bi gën ci bis yi yàlla ko ci bee ci wuji sëñ lii kum doyul dara dala doy ba leen xañaan beeco daa jox dañ koy fay barkeb Cheikh Rafal li muy def ci màggal gii su ma ko amoon defal ko sëñ Cheikh ndigal daa ko mënta am am na ñoo xam ne seen bàyyi ma sareel sëñ Tuubaa ganaar gu dof ci màggal gi ko salaam